xamante ne moom mooy cet arrêté ministériel la euh, bi ñu ko communiqué rek même bien avant parce que ci mel ni ay maître Abdoulaye Tine y a une à deux semaines samedi jour pour jour euh, fii la fii la toogoon euh, ñoom déjà dénoncé woon nañ li nga xamante ne moom mooy taxawaayu lii di parenage bi demoon nañ sax ba yóbbu ko ci cour bi nga xamante ne moom mooy moom mooy CEDEAO ba amoon nañ ci ndam mais terewul li nga xamante ne moom mooy parenage bi filtre bi amal nañ ko mais léegi yëf yi bi jaloog bi amee quelque coppite dañ ko ci andi mais nit ñi dañu gis ne dañ ko gën a corser pour def cette fois-ci une sélection te loolu c'est l'œuvre bi li nga xamante ne moom mooy le régime en en place. <coughs> merci beaucoup Adja euh, il faut que ñu ñu ñu bàyyi di wax ni lépp lu ñuy def ci wàllum parrainage wala ci wàllum suñu système politique que dañ ciy xool ci gin dañu parce que nit ñi dañu tàmm ni. duñu xool li baax ci mbir mi mais dañuy xool lan moon ban galgal la état bi di teg wala yenn la ñuy teg pour pour pour euh, gàllankoor yenn candidature yi il la raison le professeur démocratie lu baax la ci réew te dañ ko war a dañ ko war a dañ ko war a suuxat dañ ko war a protéger on ñuy dem ci ay élections présidentielles tey tey nii fu ñu toll nii kenn mënu la wax ñaata candidat Euh, euh, euh, candidature candidat la candidature lañu lañu la ñu am man dégg naa 66 yéen a ngi wax 75. professeur professeur tey tey dem na fa di wax 100 xam nga su opposition bi te bu bokk ci Malick Gakou wax li mu wax mais man amazal moo ciy teg parce que il faut ñu ñu xoolaat mbir mi xam ne ni effectivement élection présidentielle du caaxaan. te mbir bi nag dafa mel nii léegi caaxaan la man ah, ma ku jóg taxaw ne damay doon candidat ku jóg taxaw ne damay doon candidat ñoo xam ne dem nañ sax ay élection municipale mënuñu am conseil muni euh, euh, ay conseils municipaux mais dañuy jóg taxaw ne damay doon candidat donc loolu je pense que foo ñu xoolaat ko maintenant euh, parenage bi bañ ko njëkkee def mais coow lu bëri la inti ba bañ nekkee ci wàccaayu élection yi mais indi na coow. en 2019. 2019 mais mais actuellement nii 2022 2023 bi nii indi na coow lu rëy boo xam ne nii ci affaire du parce que dañu jàpp ni parrainage bi comme ni ko professeur waxee dañuy dañuy bloquer ay candidats mais dialogue national bi surtout la commission politique xam nga sànq yaa ngi koy yaa ngi koy tudd ñi ñu jooy nañu affaire caution. ñu wàññi ko def ko 30 million ñu joxe affaire du ñu wàññi ko non seulement par rapport euh, euh, euh, ci ci quotient électoral bi nga yi nga soxla pour doon pour nga mun a mun a doon candidat entre 0,8 et 0,6 mais non seulement ça ñu ubbiwaat ko ne actuellement nii mun nga sax am parrainage optionnel. député député soo amee treize députés mun mun nga mun nga mun nga jàll. wala nga am à peu près cent cent vingt députés euh, euh, maire wala wala président de conseil départemental mun nga jàll donc xam nga il faut que ñu xam ne ni y a une volonté de l'État pour quand même ñu ñu ñu parce que il faut l'État a la responsabilité d'organiser des élections mm.